non yow boo ne ñoom yow yaa ngi ci biir yow. non man bokkuma si non man bokkuma si yooyu gégéer ah parce que man man. Hmm. man bu doon man la. du ma defee comme ni président defee jël la forêt jamais. bu doon ma def dara du ma ko ko dama di rien du tout dama koy bàyyi. doo man du ko tëj jamais. kon boo nekkoon ci place président Macky Sall. ma ko tëj Khalifa Sall du dugg kaso. ma ko tëj. Karim Wade nag Karim Wade aussi xaw ma lu mu def. Hmm. je peux pas te le xam nga nit booy xam xam nga xalifa mën naa wax sax tuuti ci affaire mais mhm. mais kanam xam lu ma ko dara mhm. bu dee damay waxal yàlla rek gëstu ma bi dem seetu ko jéem ko sax seet mhm. mais bu ma la déggee ngay wax politiciens yi ñoom mais yow tam si nga bokk parce que am nga carrière politique bu riche sax waaw mais am naa carrière politique laay wax am naa bu riche mais man sama comportement ak sama defin bokkul ak definu nit yi c'est-à-dire man am na loo xamee ni politique damay bëgg a toujours Mm-hmm. mais bu mu nekk des compas euh, des combats voilà individuel man man bëgguma loolu mm-hmm. man damay bëgg nit ki looy def mu nekk dëgg si yow mm-hmm. nga xam ne bu may xeex man man ku may xeexal damay jaakaarloo yow ne bu subaa ñu xeex du ma xeex nit ci ci man du ma du ma jaar ci suuf damay jaakaar yow ne la bu subaa dinañ xeex doo bette daal du bette dama lay wax man dama lay prévenir kon xanaa kon loolu waral assemblée nationale atte euh, woo xeexoo dóoroo man si ah, maa ngi wax di. man mii ma ah wax ma ah, peut-être yow peut-être yow. peut-être yow ban projet de loi nga teg table président no attends xam nga non attends xam nga man. Hmm. am na yu bari yoo xam ne peut-être euh, mën naa ko wax tey bi ñuy def euh, bi ñuy def élection euh, nu mu tudd hmm. comment s'appelle-t-il nu mu tudd maire yi bi avant ñuy def. la loi avant ñu def loi bi bi ñu ne dañuy def comment s'appelle. Hmm. bi ñuy reporter date bi la wala. non non non wax ma yii avant loolu c'est-à-dire avant ñuy def. c'est-à-dire ñu def euh, président avant ñu def sax président avant ñu def. parrainage parrainage. loi parrainage ah, loi parrainage. Mhm. mais lan moo tax ñu delloosi ko. kan moo wax. Mm. jëlaat leen affaire yi ngeen xam man maa wax di. keneen amul man maa wax di. Mm. man maa ne Macky Sall laa wante d' accord ma ci li mu def. mooy parrainage. waaw parrainage bi parce que ni ñu ko présenté assemblée d' accord ma ci nañ ko changé. lu la ci loo ci gisoon lu parce que instant boobu. Mhm. bu ñu ko defee c' euh, porte la woon boo xam ne que ay conflit rek la doon créé. ci ban fànn. parce que loi bi. bu mu de toute façon mosu waaw déet waaw mais en tout cas loi bi ni mu jëkkee woon ñëw. ni ñu ko tëggee woon bu mu accès. Mhm. bu ñu ko bàyyee woon noonu kon dëkk bi yëpp xeex wala ndax dañu waxoon ne que koo xamee ni que yow parrainage bi bind nañ sa tur bind ko si beneen liste. Mhm. liste waa ji si annulé. mooy doublon yi. waaw doublon yi. pourtant kale nañ ci ñu bëri. waaw mais non kale ci ñu bëri. c'est-à-dire loolu moo leen kale. mais non dañ leen kale mais annulé wuñu seen liste. ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne mënuñu mottali lañ kale mhm. mais bii dañ ne woon bu ñu la bindee fii ñu bind fene comme tey ji tey ji man ma jël dix personnes mhm. bind leen si liste koo xam ne sama opposant la mhm. bind leen sama liste moom dañ koy dàq dañ leen di dàq moom automatiquement liste am dootul valable donc c'était très compliqué il la fallu que ñu defaat ko créé waat benn commission demaat toogaat ak nit ñi pour ñu changer waat les termes mais bi ñu ko changer waat te xam ne que te principe bi ànd nga ci parrainage segg boobu tamit boobu ñu jël rek seggee ko présidentiel bi no présidentiel bi moom gisu d'accord hmm. waaw présidentiel non moo présidentiel man bu ñu ma toppoon caution bi sax dañ koy yokk ah waaw man xam nga nit homme d'affaires nga rek léegi du question homme d'affaires ñeneen ñi nag non cest du question homme d'affaires hmm. ku munta am cinquante millions mun a nekk président Sénégal c'est-à-dire nit du xeeb boppam gëwuma loolu hmm. man bu fekkee ne que yow boo amee boo wutee tey boo xëy suba da ngay wuti ndékki gannaaw suba nga dem wuti añ nga xëy suba da nga may jiite dama naan kii amee lu mu jëkk defar moom mooy defar boppam ba pare dama ciy ba dama koy bañ damay bëgg koo xam ne que wóor na ma ne kii kat heure bi bu accès wutatul dara si ñun réew mi lay liggéeyal est-ce que gisagum ga fi président bu ñëw te wutul fi dara fii non amaguñ ko de depuis l'indépendance mais moom moom la ñu mës a am sax actuellement ñu fi nekk gum président ñëpp mm-hmm. kenn ku ci nekk bi ngay agsi ama am nga dara ba pare ñëw loolu les mains vides ah. mukk wax ma ke ban président moo fi ñëw rek nekk les mains vides Senghor bu mu fi nekk nekkul mains vides Abdou Diouf nekkul mains nekkul mains vides Macky nekkul mains vides kenn ku ci nekk boo ñëw kay ñu ngi naan la fan nga jëlee say milliards ak foo jëlee. say bare mu cinquante millions bi nii est-ce que. non moom vraiment moom lañ ko war a yokk. Hmm. bu ñu ma toppoon deux cent millions lañ koy def ku amul lay wax. sama sama bëgg-bëgg lay wax c'est pas parce que nit ñi d'accord ci wala nit ñi boo ko waxee nangam nangam man dafa nga naa d'accord ko am 10 millions ñëw naan daway nekk candidat présidentiel wala 15 la yepp mhm. man daal sentiruma sa sa sa. loi sur le parrainage xam nga bëgg nga ah. xoolal déjà sur le tabac def na man maa dugal benn amendement boo xam ne dañ ko rejeté te pourtant kenn wax ko nit ñi dañ ko fàtte. ban amendement la amendement sur le tabac xam nga tabac buy dugg Sénégal tout est exonéré ñu xëy suba di la taxé ñu ne dañu def taxe sur le tabac à cinquante cinq xaw ma soixante pour cent. mais tant que cinquante cinq à soixante pour cent boobu c' sur vingt trois pour cent sur les produits yu dugg seulement dans le tabac dans le tabac tout le reste est exonéré. ça veut dire que defuñu dara. <laughs> mais man débat politique bi laay. non débat politique bi c'est-à-dire téesante yu bokk ma si. saagante yu bokk ma si. comme bi bi fi mujjee am. mooy loi sur le terrorisme bi. non man man ay saagante ki ay tësante du mu si bokk. non mën na bañ a doon saagante. mais non loi sur le terrorisme nga wax. loi sur le terrorisme booboo fi mujj. waaw loolu loi sur le terrorisme. Mhm. li ñu indi présenté ñu ko. ci cadre bi nga xam ne moom lañ ko la ko nit ñi définir. Mhm. ñu man gisuma ci loo xam ne jar na xuloo. Mhm. ku ci xuloo rek xanaa da nga am mbokk terroriste wala nga am xarit terroriste wala nga am ay mbokk terroriste. ñu am ñu terroriste ñu terroriste. bu ñu sañee loi bi day gën a dëgër ba terroriste bu fi ñëw sax boo yëgee ni suñu loi nii la mel sax doo jaar suñu dëkk mhm. loolu moo ñu arrangé di bu ñu yéegaatee tuuti ci bi ñuy dindi mana malaanu kiiraayu Ousmane Sonko mhm. débat boobu man dégguma la ca de non doo ma si dégg lan laa si def ah député nga à l'assemblée non du si wax concerne na la non pour non ma ci ban fànn nga bëgg mo wax malaanu kiiraayam mais moom la tax ñu koy dindi mais moom la moom la moom ñu ko waxee pour mu ñëw du ñëw bu ñu présenté wul du du du présenté moo amul kenn ku muy expliqué nit ki boo bëggee ñu défendre da ngay expliqué nit ñi. Mhm. Ah, mais man boo ma expliqué wul lu ma xamul du ma ko défendre su la convaincre woon publiquement di nga ko. soutenir bu ma ko man. wala nga bu ma oh. convaincre woon publiquement ma jël rajo bi publiquement défendre ko man loolu c'est pas mon problème nee naa la man je suis pas lié. man bokkuma ak député yi nga xam ne ni dañaan bu ma waxulee lii diw daf may mere wala diw man ku ma mere du may wàññi du ma dara la ma dul wàññi. maa ngi da ngay ànd ak pouvoir. muy législature bi ak bële. ba tey pouvoir président Wade. président Diouf mais pouvoir non pouvoir président Wade. doo sori pouvoir ma si dara. Mhm. dama j'étais même pas visible. Mhm. les gens ne me connaissaient même pas. c'est comme si je n'existais pas. malgré que amoon naa tur nit ñi xam ne sama tur yëpp mais amul benn post bu ma jël ci pouvoir Wade amul. mais gañ nga marché ordure moom gal dama ne wadd ci ordinaire la ma fekk. Hmm. Abdou Diouf ci boppam ci ordinaire la ma fekk. wala dégg nga li ma la wax bu baax. mais li nga ci gagné ci président Wade moom. gagné woo ko ci président Diouf non non non je si gagné ci Abdou Diouf gagné ko. Hmm. ci Abdou Diouf laa gënoon ci ordinaire que léegi. doon na ma ta ama Sénégal la woon de. non ama Sénégal maa ngi génne Sénégal. Veolia Veolia maa ngi génne Sénégal loolu ragaluma ko. loolu hmm. ragaluma ko. cest à man kenn du ma nangu dimbali si ci ci ordure parce que xam nañ ne que sama passion la ordure nekkuma si parce que dama ci wut xaalis. c'est une passion chez moi. ah dama bëgg la propriété moom moom boo ci amutoon moom kenn génnoon nga ci. waaw mais xam nga yaa ngi naan bu ma si xam nga tey jii. Hmm. du ma ne dama si ñàkk. mais da ngay seet bés boo amee bés boo dajeek ñi nekk si ordure yi bu ñu jëlee dix yi ci ëpp li ñuy fayee ko bokk ma si. donc hmm. leer laa lay wax dama ne. mën hmm. nga woo waa UCG mën nga woo neex.

dañ naan non Diop li muy daj ci mbalit mi kenn fay ko ko loolu li ma lex nii jarul laqatu xam da moo tax ma ne am na yoo xam ne nit yi dañuy wax c'est privé kenn war ko wax mm-hmm. mais man mun naa ne ko man ça me pas mm-hmm. parce que c'est une passion chez moi j'adore la propreté dama bëgg lu set donc loolu moom mooy sama sama cat bu bu baaxee dama si topp bu baaxul dama si topp mm-hmm. bu ma sañoon tamit mbalit du am si buntu benn kër am naa ci ay xalaat am naa ci lu may def ainsi de suite donc mhm. loolu sama passion la waaw balaa ñoo génn assemblée euh, def nga ñaari législature mhm. bee ki ko jiite woon surtout ci côté mouvance présidentielle Moustapha Diakhaté nee na dafa nul mhm. bii moom loo koy jugé non lu jeexagul mënoo ko jugé mais à mi parcours. à mi parcours non jeex na sax parce que 2022 la seen mandat. mais jeexagul yow yaa nekk nee na bi dafa jeex ki ko jiite woon moom moo joxe. argument ci côté majorité bi. waaw dama man ki ko jiite moo joxe argument am. moom argument am la mais man boobu temps man maa ngi maa ngi maa ngi nekk kii nu mu tudd. non inscrit non inscrit kon mun ma mun ma dugg si seen bii. Mhm. mënuguma wax parce que am na ci loo xam ni c'est c'est bien c'est-à-dire bari na ci lu baax mhm. mais les gens ne communiquent pas sur le bien mhm. les gens communique communiquent que sur ce qui est mal. les comme. c'est-à-dire tout le monde c'est-à-dire Sénégal bu gaa yi defee loi bu baax. kenn du ko commenter mais bu defee loi boo xam ni. arrangé wul benn waaye wala arrangé wul benn lobbying wala teeti comme ça. Mm. lobbying yi dañuy dugg si ginnaaw di juga nii di wax ñee et de suite kenn ku nekk di yuuxu donc loolu moo tax. Mm-hmm. mais man bokk mu foofu. man benn lobbying mënu maa yóbbu ñoom sax xam nañ ko. mais majorité moom dina la yóbbu parce que da ngay bokk. non majorité bu ma d' accordee <laughs> damay voté ak ñoom. Mm-hmm. bu ma d' accordul je du ma sax ñëw assemblée. Mm-hmm. waaw bu ma d' accordul je même pas. ah kon ci absenté yi si ci nga bokk. waaw waaw ma yenn saa yi damay absenté man du dem tout le temps bu fekkee ne gis naa lu ma xamul du ma dem. non wax dëgg rek nga fi def na yaa avoué lii publiquement. man mais lan laa si ragal lan laa si war ragal. Mhm. nit ki li ngay def ba pare nga di ko ragal ragaluma yàlla may ragal nit yi. Mhm. ragal man man yàlla laa ragal di ragaluma nit yi di. Mhm. nit yi ragaluma lan noo leen di ragal man yàlla laa ragal mais loo xam ne d'accord ma si wala loo xam ne gisuma ko wala xaw ma nu mu demee. wala liñ nekk ci biir doyul sama xel ma wax ci sama xalaat kenn déglu ma mais ma toog sama kër. waaw bu ñu génnee assemblée léegi 2017 lan moo tax nga def sa liste bokk bokk ci Benno Bokk Yaakaar bi. bon li tax bokk ma Benno Bokk Yaakaar aussi. Mhm. wax naa ko aussi publiquement xam nga man dama nekk koo xam ne que damay bëgg parti parti day am euh, référence parti bu amul référence booy nekk toujours ci benn sëmbaxloo mhm. yow sa bopp doo dem sa ba xam lan nga doon. pour natt sa bopp. il faut nga natt sa bopp man gëwuma parti bu dul natt boppam. gëwuma ko je n'y crois pas. nit ñi wax na leen lu leen neex gëwuma ko mais en réalité bi may dem en 2017 man kenn c' était stratégique. oui c' est xam nga loolu mun nañ ko wax léegi parce que passé na. pour lan man boobu temps je suis un allié du président te xam naa ni que ñun ñëpp bu ñu nekkee ci benn cin. mun nañu am ay faay te faay yooyu am na il faut mu am ñu jël risque pour pallier à cette faille. Euh, baara yëgoo bi la daal. non du baara yëgoo. xam nga li ngeen mooy candidat liste ñu créé woon kon yow ci man xam nga parti laa yor mënuma bokk ci liste bu ñu créé defoon naa ko 2012 taxaw du Macky Sall est-ce que dégg nga ma wax. Mm. man du ma baara yëgoo. mais nit ki bu fekkee da ngay ànd ak moom dangay wax loo xam ne wala nga def ak moom loo xam ne dina ko jariñ. Mm. sinon du bul ànd ak moom. man du ma ànd ak nit pour sama intérêt bopp man. Mm-hmm. ànduguma kenn pour sama intérêt bopp musul am je ne l'ai jamais bi ñuy dem élection en 2017 c'était ça la stratégie du parti il fallait partir pour que ñu natt suñu bopp. Mm-hmm. ñu xam ni ñun kat bu ñuy dem élection nii nañu war a demee c'est comme ça et on l'a toujours fait. ah mais yéen 2012 du plus fort ngeen ñëwee woon. plus fort déedéet 2012 on est passé normal. normal mais 2017. on est passé normal aussi tu sais on est le septième parti. Mm-hmm. de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. il y a 17 partis représentés ñooy septième. xam nga sixième ci côté électorat. ci côté électorat. et sur le plan de l' assemblée nationale feeñu ci bokkuñu ci. bokkuñu bureau assemblée nationale yoruñu commission. kon ñu la kon ñu la lan la kon ñu ban position lañu bokk te ñu bokk ci majorité présidentielle. nga bokk ci majorité présidentielle bu ñu joxe cër duñ la jox. bu ñu jox commission duñ la jox te nga nekk assemblée nekk sixième parti ñuy jox ñi nekk quatorzième treizième douzième te onzième te yow joxuñu la ça veut dire quoi. mais bu ñuy joxe marché jox la comme. mais man kenn mosuma jox marché bi amee ñu jox la marché. transport ceeb yeeg diwlin yeeg meew yi. xam nga xam nga xam nga loolu nit ñi dañ yaakaar ne que xaalis la. Mm. ma jox la benn euh, beneen affaire xam nga nit ñi bi may dugg si euh, transport bi. Mm-hmm. du woon man samay doom la. ah parce que c'est important ñu ko ma expliquer ko nit ñi comprendre parce que tamit. Mm-hmm. waxoon naa ko benn yoon mun naa si dellu si waat. xam nga bu euh, boo amee njaboot ñu dugg si dara au départ doo sentir sax coow bi doo ko doo si dugg. Mm-hmm. dañu def marché rek ñoom ñu dugg si marché bi yàlla def ñu dugg ils ont gagné ndax la moo tax ñu gagné biñ ñuy dama la laaj dama leen ne da ngeen di laajte quel est le prix du transport bu nga xam ne moom la commerce intérieur joxe. Mm-hmm. dans la ville pour les régions. wala bëgg am référence. Mm-hmm. ils n'ont donné que prix. commerce yi prix yi nga xam ne moom la commerce intérieur joxe ils n'ont donné que ce prix là parce que dama leen normalement état mënut a joxe prix yu ëpp ay prix prix yi nga xam ne moom la commerce intérieur fixé ñoom ñu joxe prix boobu yàlla def ñi bokkoon ci affaire bi yëpp def ay prix supérieur ñoom ñu gagné bokk si ñuy gagné parce que du ñun rek ñoo gagné woon xëy na ñun lañ ci ciblé mais du ñun rek waaw y mhm. avait cinq ou six mhm. bi ñu ñëwee ñu commencé bi ñu commencé ñu wooma ne ma ah, gañ nañu marché bi mais di ko mën a mais marché bi dafa diis ma ne ah mais marché bu diis yéen a ko jëf jël leen ko sama yoon sama yoon mais au départ ma dégg coow bi j'ai dit attention mënuma dégg ñi coow bi nii ma toog parce que ak coow bi lu mu bari bari mën nañu mettre en avant. ah député nga dootuñu may dootuñu xale yi en avant. Mhm. ma ne donc bàyyi ma ñëw jël si